fedd lu sunuk jéggalu ci sunu borom subhaanahu wa mi ko yelloo di fàttali tuuti rekk ci ak tënk ci liñ doon wax ci arab ci ñi nga xam ni ñu mën cee am ab yóbbal te loolu mooy lan bis ni tey bis bu màgg la ci jullit ñi bis la boo xam ni bis mu ñu mën a jàngee ndigalul sunu boroom ci ab jaam bu nangu digalam te mooy yonente bi di saydna saydina ibrahim moom mi nga xam ni yàlla dafa dogaloon mu yeex a am li ñuy wax doom ba mu màgg ak doom ni mu mel ci nit sunu boroom sàkku ci moom mu def ko li ñuy wax mu rendi ko yàlla mi dogalit foofu mënees na cee jànge ni waajur wi nangu na ndigalal suñu boroom ba sant ko doom ji doom jiit nangul ko mu war koo jëfandikoo kon ba yàlla mi nga xam ni moo ko wutalal am xar loolu mooy ci gàttal tabaski maanaam tabaski munta génn loolu mooy jaamu bi yàlla boo xam ne yàlla digaloon na ko mu jëfe ndigalam ci doomam suñu borom watteel ko ak am xar nga xam ni kon liñ ci mën a jànge mooy mooy nit ku ne ci ñun ab jaam nga boo xam ni eh, ki mat a jaamu mooy sunu boroom bu la digalee danga ko war a def looloo taxoon nag sunu maam Ibrahim bis ni tey di bis bu am solo ci jullit ñëpp ñu di ko feete ware na cee jànge loolu kon nag mbokk yi ñu ngi leen ciy ndokkeel ci loolu bu baax a baax a baax a baax tey xam ni andiwunu fi dara ab jullit wala doomu aadama ci kaw suuf lu gën a màgg wala lu gën a yey ci moom jëfe ndigalal sunu boroom te jëfe ndigalal suñu boroom mooy tax nga am li ñuy wax ak mucc moo tax sunu maam Ibrahima mii ko jëfandikoon mucc na doomam mucc soxnaam soosu mucc kon nag ñi ngi leen ci gën a fàttali ngeen fàttaliku bu baax a baax ndax bis bi rek du bis boo xam ni naam dañ ciy rey ay xar walla ku ko amoonul it dem jëndi wala nga rey nag wala loo mën di rey baax na tuul deret ndax soxlawuñu ci maanaam dafa mel ni xar ma rëy ak fuukare waak yeneen yeneen waaye lan lañ ci soxla mooy ragal yàlla mooy ñu yëg ci nii sunu boroom digal nanu ñu war koo jëfe loolu mooy bisub tabaski kon nag mbokk yi ci biir loolu ñoo ngi ciy fàttali di fàttali suñu bopp ni ñu xam ni kii mat a jaamu mooy yàlla suñu borom ñu xam ni it ki nga xam ni bu ñëpp maase woon bëgg laa jariñ te moom àndu ci du mën a sotti bu ñëpp àndoon it ci bëgg mu man laa lor du mën a tax mu ñu man laa lor ndax noonu la ko sëriñ bi waxee woon rek doomu aadama yi li ñuy bari bari bu ñu maase woon ñoom ñëpp dajaloo ci benn barab bëgg a yëngal wenn fepp suuf li muy tuuti tuuti du tax ñu mën koo yëngal loolu kon liñ ciy jànge rek lu am ñu xam ne suñu boroom la kon kooku moo mat a jox sa bopp kooku moo mat a li mu la digal nga góor góorlu ci bu baax a baax bal law tamaalu ala tahriki li zarratin faqat ma tasriki doona iradatin min arrahmani la ajasu anhu bila tawaani ñu gëm ni kon julit bi wala doomu aadama bi mënul di lekk wërsëgu suñ borom yi mu koy wërsëgale te du ko nangoo jaamu ndax indiwuñu fi ci àddina lu may ñu di ko jaamu ndax sëriñ bi wax na ko bu fekkee yàlla yaa ngi lay wërsëgal nga di ko lekk te waxtu wu ne nanguwoo jaamu sunu boroom suñu sëñ tubaa nee na soo ko tuubul ba dem man ngaa tàbbi sawara loo ko sëriñ bi la fa in takun aakila risqallaahi wa anta fi kulli zamanin laahi walam tatub li talabil xofraani mujtahidan faja fa daaxilu niiraani kon ñu bàyyi xel bu baax ni wax ji lu mu bari bari bari bari bëgguñu lekk lu lekk ñu ay jullit ñu am pas-pas jëmale ci sunu boroom kon nag mbokk yi ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax ci bis yi la ñu man ci am ay yóbbal kenn ku ne booy dem am ci loo yóbbuloo te mooy ak ragal yàlla te ragal yàlla moo ëpp lépp te jamono ji ñu nekk it ñu ma ñu maase woo ñun ñëpp di bàyyi xel boroom xam-xam yiy wax ndax jamono ji dafa dafa dafa nekk li ñu koy wax jamonoy TikTok jamonoy lu gaaw jamonoy Facebook yi nangam te boroom xam-xam yi ci bari jamono yi ci li ñuy wax ñu ci baree baree baree bari dafa am lu leen tax di wax ñenn ñi dañuy jot li ñuy wax ay financement nga xam ni sañu ñoo bañ a wax sañu ñoo bañ a lëndëmal xel yi soo xoolee tey li ëpp solo ci débat yi nga xam ni dafa xew léegi ci jamono ji ci fan yii rek entre diggante weer yu feeñ na feek weer yu feeñul fii ak entre maanaam bis bi dañ ko war a woor ak kenn waru koo woor ak yépp mooy coow li lëmbi àdduna dafay mel ni woor sax dafa mel ni woor gi ñuy woo arafa daa mujj dem ba li coow li bari ba mu mujj doon farata te luñ sopp la rek ku ko mën da koy def ku ko mënul wàññiwu la dara ku ko deful amoo ci benn bàkkaar kon nag ñu bàyyi xel bu baax ni débat boobu nit ñu ubbi nañ ko te ñu ci làqu ñi ci suuf ñi ci ëpp bëgguñu lu dugg ci ñenn ñi nga xam ni seeni bopp wayef na ñu jël seeni pas-pas te ñun am nañ kilifa ku am kilifa gu mel ni sëñ tubaa am njàngaleem war na laa doy sëkk war a wuti daa feneen leneen kon borom xam-xam yi nga xam dañuy wax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax da ko sëriñ bi wax woon inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walu afnal funun soo soo gàngaroon ba dajeeloo gàngi xam-xam yëpp te àndoo ko ragal yàlla kenn wul laa tuddee boroom xam-xam loolu nag li tax ñu di ko wax sunu doom yi sunu rakk yi dañu nekk ci jamono joo xam ne jamono yi liirantu la jamonoy seetaan jamonoy wax du kuñ kuy kuy wax ku ne rek ñu topp la la muy wax mën naa am yéen bokk leen sax mashab ma ngeen di dund ñun nañu yem ci Sëriñ Tuubaa mooy mashab bi ñu indi muy maliki yi lu leer naññ la sunu maam yi dund ci sunu baay yi dund ci ñu fas yéene cee dund wat fas yéene cee yar sunu doom yi te sëriñ Touba moom mi nga xam ne li taxoon mu ñëw du woon dara lu may yeesal diiney lislaam te yaakaar naa li mu ci yeesal ak yoon wi mu ci wane doy na sëkk ci ab taalibe waroo dem di xiñ ci woo di wuti feneen diinun siwa islaamihi laa yu'madu xindal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon ku am kilifa gu tol noonu waroo dem di wuti feneen leneen rawatina na kii fi nekk tey di al mujahidul akbar sëriñ mon Muntaxa al Basir jullit bu waxuma taalibe yi waaye jullit yëpp doy na référence ci moom moom day li alquran wax fa xalafa min bahdin xalfun adaawu salaat wa tabawu sahawaat dalu ko fa sawfa yalgawna xayin dalu ko ndax lan sànkul julli ajjuma jiire ngeen gis ko mag la moo xam ne fi mu toll ci at mu yor bantam bi génn mënoon a toog këram ndax kon daan wàcc na ko waaye gis nga ko ma ngi cee ñokk ko ki di wut lu baax di wan nit ñi ni nit dafa war a jaamu yàlla ba keroog mu fi jóge kooku nag kon ñëwu fi rek ngir moom wan diine ginnaaw wala mu wan len meneen jàngane moo xam ni mu sëriñ tubaa tegoon la bañ na ko ba soññeem ci sëñ tubaa dafa am lu ciy làqatu ndax ku ñëw dalay wax rek demal ci sëñ bi sëñ baa ngi sëñ baa ngi li muy bëgg a wax mooy sëñ bi mooy lépp rek mooy diine mooy lu baax moo di njub mooy lépp soo ci demee def ko seetu di ko xool li nga bëgg lépp daa ko am kon nag mbokk yi nañu delloo si sunu bopp xam ni nit ñun ni ma ko waxee woon fii rek ay taalibe lañ te taalibe bu amee kilifa gu doy kilifa tam jox ko boppam waru ko sàkkal yoon wu muy jaar wala mbedd mu muy jaar te ki ñu am tam mu nekk fi te sëriñ Muntaxa doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ci ab julit wala ci kilifa ndax bu ñu demee ba bàkkaar yi noonu lañ ko mën a waxee bàkkaar yi bari mu yëg ni nit ñi dañoo war a tuub wala ñu dem ba jàpp ni dañoo war a ñaan sunu borom da ngay gis mu woote ni nañ ñëw sikkar tudd tudd suñu borom bi jàng alxuraan jàng xasida ndax loolu xam na ni am na lu muy def ci nit ñi kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fii te ànd ko wér te ñun ñëpp ñu tënku ci loolu ku am kilifa gu mat kilifa waroo dem di wuti feneenu kilifa ñoo ngi jéggalu bu baax ndax ñi sant faal waxtu yi lu mu gën a yàgg am na lu leen di xaar ca kër ga te loolu it maanaam mu nee su ko ñoom defi tànk imaam defu ko moo tax ñu ngi jéggalu bu baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Aafiya di ko teg loxo sëriñ Fàllu ak imaam sëriñ Abdul Xaadar ñoom sëriñ Cheikh Bousak ñoom sëriñ Moustapha sëriñ Jasaaka jenn ak mbokk yu baax yi nga xam ne gis naa leen fii ñëpp ñu tegal ñu ko ci loxo taalibe yëpp di ñaan sunu borom mu nangul na sunu jaamu yàlla te ñun ñëpp kenn ku ne boo demee ñu góor góorgóorlu ci xam ne daal lu baax rek moo am solo kenn ku ne tënku ci jamono ji moom maanaam yàqu na yàqu goo xam ni ku ne lu baax la nga am bay ba nga wut ko te jéem koo dugal ca sa bëñ ba mujj te mooy bëñ ba ñuy wax seen waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu